sëriñ seexu buso sëriñ seexu buso mi ngi gane àdduna ci atum 1853 ci dëkk bu sell bii di mbàkke bawal di doomu sëriñ mbusoo be buso mi nijaayu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ak ku ñuy wax soxna faati balla mbàkke moom sëriñ seexu buso di doomu sëriñ mbusoo be buso ak soxna faati balla mbàkke bi mu feeñee jamono ci atum 1853 lu ko jiitu laata muy feeñ jamono moom sëriñ seexu buso cheikh omar wu taal nekkoon jàmbaar ci wàllu lislaami itam ñëwoon na ci dëkk bii di mbàkke bawol ndax wóllëre waajuróom la woon di sëriñ bu soobe busoo ginnaaw bu mu ñëwee ci dëkk bii di mbàkke bawol nag sàkku woon na ci sëriñ bu soobe busoo bis bu amee doom nag mu tuddee ko doomam jooju loole itam sëriñ bu soobe buso déggewu ko woon ak nopp yi tëx ba tax na bi soxna faati balla mbàkke amee nag lii di gan mu nekk góor mu tuddee ko ko muy sëriñ seexu buso mi sëriñ seexu buso cheikh omar fuuti wu taal lañ ko tudde moo tax ñu koy wax sëriñ cheikh omar taal buso moom sëriñ Bousso bi Bousso am na nag ñum bokkal kii di soxna Faati Balla Mbàkke mi nekk waa waajuram ñu ràññee ci taawu soxna Faati Balla Mbàkke ba ak sëriñ Bousso bi Bousso di soxna Xari Balla Bousso bintu soxna Faati Balla Mbàkke bintu sëriñ Bousso bi Bousso sëriñ Mbàkke Bousso ibnu soxna Faati Balla Mbàkke nu sëriñ Bousso bi Bousso sëriñ Mbàkke Bousso mii sax moom moom dëkk bii di Gédé sëriñ Masamba Bousso ibnu soxna Faati Balla Mbàkke ibnu sëriñ Bousso bi Bousso ak moom sëriñ Seexu Bousso ibnu soxna Faati Balla Mbàkke ibnu sëriñ Bousso bi Bousso sëriñ Seexu Bousso mi moo nekk ñaareelu doomu soxna Faati Balla Mbàkke ak sëriñ Bousso bi Bousso kon ñii la bokkal waajur wu jigéen di soxna Faati Balla Mbàkke ak sëriñ Bousso bi Bousso muy ñaar ñu góor ak kenn ku jigéen ak moom muy ñett bi matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Seexu Bousso waajuram di sëriñ Bousso bi Bousso moo ko dalal alxuraanul karim waajuram sëriñ Bousso bi Bousso itam moo ko jàngal alxuraanul karim ba mu mokkal ko moo ko Bousso bi Bousso moom sëriñ Cheikh Omar Foutiou Bousso mi ba tax na fépp fu waajuram dem di sëriñ Bousso bi Bousso moom Cheikh Omar Foutiou Bousso mi tim àndoon nag waajuram ba ci guerre bi nga xam ne nii kii di Maba Jaxu Ba woote woon na ko ci som ci atum 1865 bi sëriñ Bousso bi Bousso di dem ci guerre boobu ci Saalum àndoon nag sëriñ Seexu Bousso itam ca guerre ba muy xeexu Maba bi ci foofa itam la des ànd ak waajuram ba ni waajuram jógee ca guerre ba dellusiwaat itam ci dëkk waajuróom moom sëriñ cheikh omar Foutiou Bousso mi ku taqoo woon ak waajuróom la di sëriñ Bousso bi Bousso sëriñ seexu Bousso moo ko baax ki sëriñ tubaa seexul diggante doomu nijaay lañ ak doomu bàjjen ndax soxna jaaratullaahi moo meññ xaadim rasuul sëriñ Bousso bi Bousso moo meññ sëriñ cheikh omar Foutiou Bousso mi soxna jaaratullaahi ak sëriñ Bousso bi Bousso ñoo bokk benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen kon sëriñ seexu Bousso ak seexul xaddim ñoo bokk lépp te itim nag ñoo bokk menn at muñ feeñe jamono di atum 1963 ñoo bokk itam benn bërëb buñ feeñee jamono itam di mbàkke bawal te seen ñaari waajur yi itam mag ak rakk lañ ndax sëriñ busoo bi buso ak soxna jaaratullaahi ñoo bokk maam astawaalo ak kii di sëriñ maa buso loolu itam taxoon na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moo kii di sëriñ seexu buso ñoom ñaar ñoo defandoo lépp ci seen diggante ëttu ñaari waajur yi ba bi ñuy dem itam ci xeexu màbb bi ñoom ñaar ñoo fa dajeendoo ndax mamor anta sali mbàkke wuy ji woon na màbba ca xeex ba te booba àndoon nag ku baax ki seexul xadim wuy ji woon na màbb ca xeex ba ba tax na itam àndoon nag kii di sëriñ seexu buso kon poroxaan googu itam ñoom ñaar ñoo fa nekkandoo woon xam ngeen ne màbb joxu ba mi ngi ñàkk bàkkanam ci le 13 juillet 1867 ginnaaw 13 juillet 1867 kii di Mamor Anta Sali Mbàkke nag dafa bàyyikoo nag ci dëkk boobu nag di poroxaan delsiwaat nag fi mu cosaanoo ndax kat Lat Joor la àndaloon ca xeex ba te Lat Joor itam dafa jóge woon te booba nag ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nañu del siwaat ay at nag yu néew lañ ci teg lii nag di yoonu murit taxaw ci atum 1883 ci dëkk bi nag di mbàkke kajoor ginnaaw bu Mamor Anta Sali Mbàkke nag sancee dëkk boobu di mbàkke kajoor ginnaaw itam nag bu Mamor Anta Sali Mbàkke génnee àdduna mi nekkoon waajuru ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim booba itam sëriñ bu soobe bu so itam mi ngi ci suuf soosu nag di saalum ci dëkk booba itam di naawel ndax kat wax nañ ne booba itam nag kii di maam asta waalo mbàkke mi nekkoon waajuru sëriñ bu soobe bu so ak soxna jaaratullaahi ngi ci dëkk di naawel te booba itam ay atam itam mayutu ko muy déplacé wu lool moo taxoon itam sëriñ Bousso bi Bousso wéyoon nekk nag ci dëkk boobu di naawel ndax soxna Asta Walo Mbàkke mi nekk mag ci dëkk boobu nag di naawel fa la sëriñ soobee bu sa des nag ba ci atum 1884 ci atum 1884 googu itam la ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag dellusiwaat itam nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal ngir sanc si nag dëkk bii di Daaru Salaam ak Tuubaa booba itam nag Mbàkke Bawal bu leen fàtte ne mi mbusoobe yi ak lycée bii di lycée bu mbàkke bu njëkk nag foofu nag la dëkk bu sell bii di mbàkke bawal nekkoon foofu itam la seexul xaddiim feeñe jamono foofu itam la sëriñ seexu buso mi ñuy waxtaane feeñe jamono bi seexul xaddiim jógee mbàkke kajoor itam delsiwaat ci dëkk bii di mbàkke bawal itam ci diggante boobu itam la amoon kër ca at moom itam di atum 1884 itam la sëriñ mbusoobe buso nag fab taawam bii di sëriñ seexu buso jébbal ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye seexul xaddiim dafa sàkk woon ci sëriñ seexu buso ngir di ko wax ne nag mu toog nag yoral ko nijaayam jooju ndax moom moomu di xaadim rasuul kat moo war a yor nijaayam jooju waaye comme jotam muy ko mu koy yor na sëriñ seexu buso toog na wuutu ko nag ci nijaayam jooju di sëriñ buso be buso kon lii moo tax sëriñ seexu buso àndut ak ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim waaye nag seexul xaddim itam sàkku woon na ci sëriñ buso be buso yeneen rakkam yi muy ku mel na sëriñ Masamba Faati ak kii di sëriñ buso be buso ñu jébbal ko ko te sëriñ seexu buso nag des nag ci loxo yi sëriñ buso be buso ngir wuutu fa xaadim rasuul ndax moom moo ko ko war a yor ndax nijaayam la sëriñ Bousso be Bousso mii nijaay ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ak sëriñ Cheikh Omar Foutiou Bousso mii mii taawu sëriñ Bousso be bu ak Seexul Xaddiim mii jarbaatu sëriñ Bousso be Bousso bokk nañ nekk nag ci diggante Mbàkke Bawal ak Touba ak Daaru Salaam ak dëkk bii di Mbàkke Baari Jolof ci diiru fukki at ak benn ndax kat Seexul Xaddiim ci atum 1884 la delsiwaat nag ci dëkk bii di Mbàkke Bawal nag jóge woon ci dëkk bu waajuróom boobu di Mbàkke Kajoor sëriñ Bousso be Bousso itam ci at moomu jóge ci dëkk bii mu nekkoon di naawel ci saalum delsiwaat nag fii mu nekkoon itam di mbàkke bawal seexul xaddiim nag nekk na ak fukki at ak benn ak nijaayam ci diggante mbàkke bawal daaru salaam tuubaa ak dëkk bii di baari jolof ndax ci atum 1884 ba ci atum 1895 fukki at ak benn la bi seexul xaddiim nag jógee ci dëkk bu sell bi di tuubaa dem nag mbàkke baari jolof ba mu fa demee nag ba am fa ñaari weer ak i fan la nijaayam ji di sëriñ bu sóobe bu so nag génn àdduna ci dëkk bii di mbàkke bawal ndax seexul xaddiim ci weeru korite nag la dem ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof aw digg moo ca topp ca fukki fan yaag juróom ñaar nag ci weeru tabaski nekkoon bisub altene ci at moomu itam la kii di sëriñ busoo bi busoo mii nijaayu xaadim rasuul génn àdduna ñu wax leen nag lan moo yóbbu seexul xaadim ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof ginnaaw bu mu sancee dëkk bu sell bi di tuubaa quartier itam di daarul xuddoos ginnaaw bu mu fi duggee xalwa rasulullahi ngeen gi bindeef sallallahu taala alayhi wa sallam feeñ woon na ko di ko xamal ne am na tukki bu yaatu te sori de feeg yaa ngi ci sa dëkk di Touba dara du la fi dale te nag sa dëkk ko ba tax na lépp luy du la fi fekk la nag Serigne Touba Seexul Xaddim bàyyi ko nag ci dëkk bu sell bi di Touba dem nag ci Mbàkke Baari Jolof ci xalwatu boobu itam ba tey ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ma ngi koy wax ne ginnaaw bu la Touba aaree sa nijaay ji itam di Serigne bu soobe bu nekk na itam ku sus rëkk ci suñu boroom lu mu ñaan suñu boroom suñu boroom dana ko def te feeg mi ngi fi itam dana la ñeewantu lool ci natt bi nga xam ne nii moom moo war a dal nag fii ak mi ngi fi natt bi du la mën a dal waaye nag suñu boroom ak lépp lu mu namm ci jaamam kenn ku ko tee am munta am te suñu boroom buur bi tabaaraka wa la namoon na ci seexul xaddim mu dem nag ci tukki bi loola itam tax na ñaari weer yu teg ay fan ginnaaw bu seexul xaddim demee ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof la ñàkk nag ka bokkoon ci ña ko doon aar di nijaayam di sëriñ Buso bu Buso ci bisu fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru tabaski ci atu 1312 ci gàddaay gi ñu denc dëkk boobu nag Bousso Bèye sëriñ Bousso Bèye Bousso nag mi ngi génn àdduna bisub altene fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1312 ci gàddaay gi altene fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1312 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 10 juin 1895 lundi 10 juin 1895 seexul xaddiim ñàkk nag nijaayam di sëriñ Bousso Bèye Bousso ngir dëggal ne rek fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tabaski ci atum ci la seexul seexul xaddim nag ñàkk waajuram wa ñetteelu doomu soxna faati balla ba di sëriñ mbàkke buso def na ci nag am marsiya ngir di wax ne kat ci bëccëgu fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tabaski nag ci ñàkk nag waajuram di sëriñ buso bi buso ñu teewlu ñaari way yi sëriñ mbàkke def ci ginnaaw bu waajuram wa génnee àdduna di sëriñ buso bi buso ci bëccëgu fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tabaski ngir di wax na ci bis boobu nag ci la ñàkk waajuram wa ñu teewlu way yim ci defoon wufiyal waalidu aama subba shay عن عز عمره وقيل كنه حي وهو الأصح ظهر يوم اثنين li zi sil xijjati duuna may ni marché boobu nag la doomu sëriñ bu soobe bu soobe defoon nag ci waajuram di sëriñ bu soobe bu soo muy wax ne ci bëccëgu fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tabaski la ñàkk waajuram wa di sëriñ bu soobe bu soo seexul xaddim nag bàyyi ko woon na mbàkke baari jolof ginnaaw bu mu yégée ne nijaayam jooju di sëriñ bu soobe bu génn na àdduna ñëwaat nag ci dëkk bii di mbàkke bawal ngir jaale si njabootu sëriñ bu soobe bu soo booba nag sëriñ seexu bu soo mi nekkoon taawub sëriñ bu soobe bu soo moo magoon ci doomi sëriñ bu soobe bu soo yi bu seexul Seexul Xaddim ñëwee nag ci dëkk bi di Mbàkke Bawol ngir jaale si njabootu sëriñ Buso be Buso sëriñ Seexu Buso itam sàkku woon na ci sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di ko wax ne jébbalaat naa la sama bopp waaye nag fii ma nekkoon nag ci loxoy sëriñ Buso be Buso yaa ma fi bàyyi woon ba nëgëni nag maa ngi nii ndax gisatuma kii di sëriñ Buso be Buso Seexul Xaddim nag sàkk woon na ci sëriñ Seexu Buso di ko wax ne nag wéyalal ndonal sëriñ Buso be Buso ndax kat ba nëgëni yor njabootuk sëriñ Buso be Buso man mii la war waaye nag aw jot gi toogal nag yoral ma leen da nga sàmm nag ndonal sëriñ Bousso bi Bousso ba sëriñ Seexu Bousso nag wéy nag di toog ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ci njabootu sëriñ Bousso bi Bousso Seexul Xadiim nag waat na Mbàkke Bawal delsiwaat nag ci dëkk bi di Mbàkke Baari Jolof fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit di benn weer fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar mooy ñaari weer ca fukkeelu fan baak juróom-ñett nag di ñaari weer yu teg benn fan la fi Seexul kon nag dem géej gi kon ginnaaw bu mu ñàkkee nijaayam ja di sëriñ bu soobe bu soo ci diirum ñaari weer yu teg benn fan la fi bàyyikoo nag dem ci géej gi ci tuumaal bu ko maam abduloo tuumaal ci lettre bu mu waxoon ne mook Sàmba Lawbe ñoo ko bind ngir bëgg daaneel nag lii di gouverneur bu ndar wala ngir bëgg a daaneel nag état bi ci lettre boobu itam la tubaab bi sukkandiku ngir génne ko nag lii di réew mi ci bëccëgu fukki fan ci mois de août ci atum 1895 dëppoo woon ak muy fukki fan ak juróom ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof bi seexul xaddim di dem ci géej gi sëriñ seexu buso nag mi ngi ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci mbàkke bawal ngir wuutu bi nga xam ne nii nijaay la ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir itam mu taxawu njabootu sëriñ buso bi buso ndigal loolu la ko seexul xaddim bàyyee loon bi muy dem ci géej gi moom sëriñ seexu buso laataa seexul xaddim di dem ci géej gi nag sëriñ seexu buso ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim faboon na soxnaam si mu dëkkoo woon di soxna faati silla libaas mbàkke bintu seexul xadim jébbaloon ko sëriñ seexu buso ngir mu dëkkoo ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim mook sëriñ seexu buso ñoo bokk lépp soxna jaaratullaahi mi meññ sëriñ tuuba seexul xadim mook sëriñ buso bi buso mi meññ sëriñ seexu buso ñoo bokk soxna astawaalo ak sëriñ maa buso ba tax na sëriñ seexu buso ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadim diggante doomu bàjjan lañ ak doomu nijaay ba tey sëriñ seexu buso ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadim ñoo bokk te menn at muñ feeñ jamono ci dëkk bii di mbàkke bawal kon lépp depuis tout tànk ñoom ñaar ñoo ko defandoo loola itam taxoon na sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi woon bu baax a baax xel kii di sëriñ seexu buso nijaayam ji mu doyloo woon di sëriñ buso bi buso moom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ku doyloo woon taawam bii la di sëriñ seexu buso loola itam taxoon na seexul xaddim bàyyi woon xel bu baax a baax a baax kii mu feeñoon dool jamono di sëriñ seexu buso ba tax na bi muy dem ci géej gi foboon na waajuru soxna moomi natu mbàkke di soxna faatu silla libaas jébbal ko ko ngir mu dëkkoo ko ba tax na sëriñ seexu buso ak kii di soxna faatu silla libaas am ñu njaboot ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ faati buso ibnu sëriñ seexu buso ibnu soxna faati silla libaas sëriñ abbas buso ibnu sëriñ seexu buso ibnu soxna faati silla libaas soxna polle buso bintu sëriñ seexu buso bintu soxna faati silla libaas soxna sofi buso bintu sëriñ seexu buso bintu soxna faati silla libaas ginnaaw bu ko ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadim jébbalee soxna faati silla libaas moomu ñeenti bant yooyu itam la ci sëriñ seexu buso am sëriñ tuubaa seexul xadim nag wéy nag ci ak nekkinam ci réew moomu di Gabon ci teg loxo bu ko tubaab bi teg loxo bala 11 novembre ci atum 1902 seexul xaddiim nag ñibbisi bi seexul xaddiim nag ñibbisee ci réew mi sëriñ seexu buso nag def na comme ni ko mag ñépp dafa dem ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye mu wéyal rek ak nekkinam ci dëkk boobu di mbàkke bawal ndax kat foofu la ko ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dël ci njabootuk sëriñ buso bi buso ngir mu wuutu fa nag ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim lu tollu juróom benn weer la seexul xaddiim defaat ci réew mi tubaab bi mu amoon nag mbaaxaan ñu yóbbuwaat ko nag ci réew mii nag di gànnaar ginnaaw gànnaar nag seexul xaddiim dem na ci dëkk bi di ca yéen jolof ginnaaw ca yéen jolof nag njaaréem laataa seexul xaddiim nag di dem njaaréem nag jaar na ci dëkk bi di ndaam daaru xalimul xabir ci ngan gum amoon ci sëriñ ndaam abdourahmaan loo ngan googu sax moo waral màggalu ndaam gi ci ngan googu mu amoon ci ndaam daaru xalimul xabir ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo kii di sëriñ seexu bu soyitim fekk si woon na ko foofu ci ndaam daaru xalimul xabir ginnaaw buñ gisee moo ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim xaadim mi ngi ko doon laaj ndénkaan la ma la joxoon da laa soxla woon nga joxaat ma ko keroog sëriñ seexu busu summi na mbub mi mu soloon jébbal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim seexul xadim itam solaatoon na mbub moom sëriñ seexu busu summi woon jox ko ñu tàggatoo ci yooyu kàddu sëriñ tubaa seexul xadim jóge ndaam dem nag ci dëkk bii di njaareem ci ñeenteelu résidence surveillée ci at moom di atum 1912 ci at moom di atum 1912 nag ci la sëriñ seexu busu itam génn àdduna ci dëkk bii nag di mbàkke bawal ci feebar bu ko tëral di atum 1912 moom sëriñ seexu buso neewoon naa leen ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi muy dem ci géej gi jébbaloon na ko waajuru soxna moominatu mbàkke di soxna faati silla libaas booba itam sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bu sëriñ seexu buso génnee àdduna ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim jëlaatoon na soxna faati silla libaas ngir dëkkoo waat ko laataa mu doon jébbal sëriñ seexu buso na kii di soxna faati silla libaas moom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim fekkoon na moo soxna faati silla libaas ñu am benn bant muy kuñ doon wax muhammad al abdu xaadir mbàkke soxna faatu silla libaas ibnu ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim kon kooku la ci seexul xaddiim njëkk a am ci soxna faatu silla libaas laataa mu koy jébbal sëriñ seexu buso sëriñ mohammed moomu al abdu xaadir mbàkke di doomu ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim ak soxna faatu silla libaas ma ngi ca wetu maamam ja sëriñ busoo bi busoo ci armeer yi mbàkke bawal yi ginnaaw bu ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim demee ci géej gi nag ba ñibbisi ba sëriñ seexu buso génn àdduna ci atum 1912 sëriñ tuubaa seexul xaddiim jëlaatoon soxna faatu Muminatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim ak soxna Faat Silla Libaas ak rakku soxna Muminatu Mbàkke ba muy soxna Maskorotu Mbàkke bintu soxna Faat Silla Libaas bintu ku baax ki Sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim kon Seexul Xaddiim jaar na fii ak Sëriñ Seexu Buso ci soxna Faat Silla Libaas Sëriñ Seexu Buso nag sanc na ay dëkk ñu man cee ràññee mbusoobe ci Mbàkke Bawal muy fi ñuy wax jàkkay mbusoobe ji foofu itam Sëriñ Seexu Buso moo ko sanc sancaatoon na itam gëneen mbusoobe ci wetu Sonatel bu Mbàkke Bawal muy fi Mbàkke Buso sëriñ Seexu Buso moo ko njëkkoon a sanc nekkoon fa ba mu ko sancee nag nekkoon fa la ko tudde woon Mbusoobe ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag la ko rakkam ji goraat sancaat ko di sëriñ Mbàkke Buso tudde ko Tuubaa Lasar fii itam di Gédé di fi la woon fi la daa baye waaye ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag la ko rakkam jooju gor sanc ko tudde ko Gédé doomu sëriñ Mbusoobe Buso ba ak kii di soxna Maam Faati Balla Mbàkke kañ tudde woon Cheikh Omar Fuutiwu Taal mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk bi di mbàkke bawal ci weer wi di weeru maamu koor ci weeru olof wi ci weeru tubaab wa nag moo nekkoon mois de juin ci at moom di atu 1912 ci atu gàddaay bi moo dëppoog 1330 ci weer wow di weeru maamu koor ci weeru tubaab wa nag moo nekkoon mois de juin ci atu 1912 ay atam toll woon ci juróom fukki at ak juróom ñett moom sëriñ seexu buso ñu yëgal ko ko baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ndax boobu kat mi ngi ci résidence surveillée ci dëkk boobu di njaareem te boobu itam nag lay doog a dem daanaka njaareem di sëriñ Mbàkke Buso mu dem taxawu magam jooju nag di sëriñ Seexu Buso te njébbal ko boroomam ca wetu waajuram wa di sëriñ bi Buso ci armeer yi Mbusoobe yi ginnaaw bu ñu taxaw taxawoo sëriñ Seexu Buso ba noppi nag rakkam ji di sëriñ Mbàkke Buso def na wenn woy ca magam ja ngir di ko jooy ak di ko naqarlu ki mu doon xoole sëriñ Mbusoobe Buso ak soxna Faati Balla Mbàkke dem na ñu teewlu way wi ci sëriñ Mbàkke Buso defoon ci magam jooju ginnaaw bu mu génnee àdduna di sëriñ Seexu عمر شيخنا شيخ عمر لربه في نصف كيسس فمر وحن عمر شيخنا شيخ عمر لربه في نصف كيسس famar way yooyu nag la ko rakkam sëriñ mbàkke buso wayoon ngir di jooy magam jooju di sëriñ seexu buso di kim doon xoole sëriñ buso bi buso sëriñ seexu buso nag ay xalifaam nii la tëddee taawam ba di sëriñ moo roqaya buso moo ko wutu ci atum 1912 ba atum 1963 ñaareelu xalifa sëriñ seexu buso mooy ku ñuy wax sëriñ maam balla buso bu njaareem moo ko wutu ci atum 1963 ba ci atum 1991 lii di doomu sëriñ seexu buso yi na jeex tàkk ci kaw suuf sëdi gi nag tàmbalee wuutu seen maam ja di sëriñ seexu buso sët bi njëkk a wuutu maamam mooy ku ñuy wax sëriñ abdu samad buso ibnu sëriñ moo roq ya buso mi njëkkoon a wuutu sëriñ seexu buso ci atum 1991 ba 2012 ñaareelu sët bu wuutu maamam mooy ku ñuy wax sëriñ mustapha buso ibnu sëriñ bàll buso bu njaareem moo fi toog ci atum 1912 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ mustapha buso moom mi toog toogaayu sëriñ seexu buso suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko sëriñ seexu buso bi te tegaale loxo nag mbooleem sëti sëriñ seexu buso yi ak fuñ man di nekk yal na leen suñu boroom sàmm te aar leen ci seen darajay maam jooju di sëriñ seexu buso sëriñ seexu buso nag am na bis buñ ko daa fàttaliku muy li ñu tuddee ak màggal ci bëccëgu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm lañ ko daa fàttaliku ci kër njabootam gi nekkoon ci Touba Daarul Minnam waaye ci at mii di atum 2014 lañ ko tuxal ci kër xalifaam bii di kër sëriñ Moustapha Mbàkke nañ ko ci bëccëgu ñaar fukki fan ñaar ci weeru gàmmu yóbbu ko nag ci weer wi di weeru rajab màggal gi itam nag amatul bis fixe heure bu ci njaboot gi waxtaanee ba juboo ci ci benn bis rek ñu jàpp ko ci bis boobu ci weeru rajab di ko màggal ñuy ñaan ci doomu sëriñ bu soobee bu sooba kañ faye woon cheikh omar fuuti wu taal yàlla nañu ko suñ borom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gém fi bàyyi ak nuñ ci man di bokke lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara